waaw do alhamdulilah ndax mbir mu nekk bon comité ngay ñaan doo nekk ci depuis rek deux ans bon ku ne xam na lu ci xew ku ne xam na lu ci xew boobu la ñu ngi jaajëfal di góorgóorlu ñu nag chaque lundi comme d'habitude nii la dañuy physique comme d'habitude li nga fi gis say chaque lundi noonu la ñun ñu ngi suñu programme di liggéey di préparer suñu combat gis nañu loolu après bëri na polémique ndax ñu bëri woonoon ma di ma di ma ci wax quoi mais ñun nag ay jullit lañu ñun gëmuñu ku yàlla wóoluñu ku dul yàlla yaakaar aussi ku dul yàlla bu ñu bu ñu mayee yàlla la ñu gëm suñu yàlla xañee aussi te kenn lañ ko gën a wóolu kenn lañ ko gën a gëm li ñuy wax nag waxuñu ko woon ngir noo wóolu nangam wala nangam lépp dañ ko teg rek yàlla suñu borom yàlla suñu borom day fay coono fayu leneen lu dul coono ku liggéey mu fay te yaakaar liggéey nañ yaakaar yoo xamante ni bur bi yàlla dañu defal sutura waaw di am na boo xam ne nit ñi nag ñu ko gisee bokkul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 kooku euh, booy bëri ak moom tey nan nga ko war a mën a waajee carrément ak euh, ndaw bi mu ne moom la doon ak euh, importance bi mu jox boppam. waaw ñu ñëpp ay ndaw lañu. Mhm. te it sport amul amul tricher amul amul. Siteu dafa prouvé ba egg fu war a war ñu muy bëreel. Siteu dafa mhm. nii dafa liggéey moo ko fi indi. Mhm. amul leen lu fi indi bu ma bëreeloon troisième combat mu ma quatrième combat. loolu amul sens li am sens mooy mi ngi def résultat am na ñoo xamante ni dugaloon ak si sa làmb génn nañu xamante ni te ñu ngi si kaw loolu amul chance li am chance mooy tey jii Siteu liggéey na liggéey naa liggéey ba tey boo suñu ay combat bokk ci combat yoo ay combat yu mag lay nekk waaw loolu sant yàlla la ko waaw ñu nga ko euh, gën gën gën naa la mu mel ni bi ñu ko njëkkee jàpp da nga ko ñemewul wala da nga gis ci moom dara parce que dafa ne dafa fecc rek daw room euh, li ma gis yow gën la ñeme maanaam amatuma leen lu muy xalaat ci yow quoi ñu gis la nga wax la nga wax lu fan nga ko teg gën a ñeme du ragal euh, adversaire wala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 sama combat ak Ama Baldé wala Lac boo xamante ni boo simee ko nit ñi li nga war am amoo ko waaye man je me sens bien amul lu may leem laam laamee wala dara je me bien ñu bëri jàppoon ne tax nga daan juum non non du taay taay na ma sama combat ak de Guiers 2 surpoids ak confiance bu daan mais du problème mu taay surpoids la bële confiance ak surpoids aussi ku ne xam ne seen digg bërki dem def nañu benn ne li Modou Lo lebal Siteu li Siteu lebal Modou Lo Modou Lo fay ko ko ndax tey Modou Lo ku ne xam ne ni moo nekk si ginnaaw sës ci yow rek tey ku ne xam ne ni Siteu fu mu taxaw danaan Modou Lo suma xarit la moom laa bëgg nangam ak nangam mbokk sax dafa dox seen diggante waaw mbokk dafa dox diggante moo tax affaire Modou Modou dañu ko génne ci combat bi su ma doon bëreeg Siteu du tee ñooy nekk bu leneen amoon tamit Modou bu doon bëreeg suma beneen mbokk mi du tee maa moom mu ñooy nekk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 ah um, non loolu yaa ko wax nag en tout cas daal maag Siteu daal ñu dugg ci géew bi incha allah le premier waaw. mais dina ah ah loolu yow it jeexal. Ah. waaw am lu may laaj benn question bu ndaw. muy sa diggante ak Siteu. Mhm. mais mbaa xam nga ni am na lu lay xaar. waaw lu ci wàllu point mort nga taxaw. waaw sa diggante ak Siteu. Mhm. Mhm. yow yaa war a nekk professionnel lu Siteu. Mhm. di magam. am foo toll ci làmm. yàlla dogal tey nga am Siteu. est-ce que yaa ngi éviter sa digganteeg Siteu tey mar di taali bu safaan amoon. waaw loolu ñaan ñu ko yàlla. fi jëm daal yàlla ñu si yàlla defal sutura. ñu si ndam. bon làmb nag espoir moo toll si lu mel noonu. tey Messi demoon na ba yaakaar euh, ñàkk espoir. yàlla defal ko sutura defal ko ndam nu rëy ba ci dem mais a pas Papa Sow bi ma siyaane mas yi man a gis sama bopp dama ne li ma si am nii pourquoi pas falaa nat sama bopp quoi wax dëgg yàlla waaw dama xam ne moom euh, dara daal dara dara daal waaw dama yàpp ni hmm. euh, premier yàlla dina ma may ndam quoi incha allahu rabbi man loolu laa gëm quoi